asalaamaaleykum mbokk yi suñu réew mi dafa yàgg ci coona ak noteel yàq suñu cosaan ak sunu alal ñu amoon yaakaar bi ñuy jël sunu moomeel dina ànd ak yokkute ak jàmm waaye sunu njiit yi dañoo roy doxalinu ñi ñu doon noot mel ni ay buur ñàkkal ñu fayda yaatal ak ñàkk ak xeebel su dul woon sunu jom dana nu yuuxu waaye ñi ngi dégg yuuxu xale yi doon wuti koom far ci géej gi ak ña gàddaay ñu bari danañu laaj lu tax ma dugg ci jongante yi dëgg la mënoon naa yem sama liggéey jaxasoo ak nguur gi yokk sama koom-koom waaye yàlla daf ñu wax ne inna allaha laa yuxayiru maa bi xawmin xataa yuxayiru maa bi anfusihim man yàlla duma soppi mukk nekk ci yéen tànk jógu leen soppal ko seen bopp sama jaar-jaar ci xam-xam liggéey ak dimbalante moo waral may sàkku seen kóolute dogu ci taxawu askan wi ci diisoo ak jub ak yërmande ba kenn du leen jaay doole kenn du leen xeeb cher compatriotes notre histoire a été par les épreuves de la colonisation ce qui ont détruit notre culture et nos richesses et nos valeurs. L'indépendance était censée nous libérer, mais nos dirigeants qui se sont comportés comme de véritables rois ont entraîné la promotion de l'incompétence, du complexe, de l'humiliation et de la pauvreté. Seule notre valeur cardinal le diom, nous empêche de crier au et fort. Que le cri de la Genèse résonne au fond de l'océan et à l'étranger. Beaucoup s'interrogent sur mon implication dans ces élections. Oui, je pouvais gérer mes affaires et collaborer avec le pouvoir, mais mon devoir moral me pousse à m'engager en politique pour servir et développer mon pays. Changer est possible, car comme le dit notre Créateur, Dieu na change point l'état d'un peuple tant que ce dernier ne change ce qu'il y a à lui-même. Aussi, je souhaite un Sénégal réconcilié vers un développement économique et social. Je vous invite à nous dans ànd nawle ànd liggéey yokk ba yëg ko ci daara ji tool bi ak penc mi sukkuran jazilan lakum kullu amin wa antum bi xayrin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu